mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaare di ñaan sama borom boo la ñu defaral suñu biir ak suñu biti ci barke Mawlana rasulullahi alayhi salaatu wassalaam jaamu yàlla gi ñu fas yéene waxtaanee tey muy shairatu al adhan nodd di jaamu yàlla gu am solo bokk ci jaamu yàlla yi gën a gën a gën a gën a am solo ndax mooy màndargaal lii di julli moom lañuy ñuy woowee jaam yi ñu jëm ci texe jëm ci julli noddu nag mbokk yi boroom xam-xam yi am nañu wute ci ak waram wala nekk sunnaam li am solo mooy yonentu sallallahu alayhi wa sallam fa ko daa def diggal ñu ñu koy def ba jëmmi yàllaay ba bés yàlla ab tey bii ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy def nag yonentu moo ne jullee leen ni ngeen ma gisee may jullee alayhi salaatu wassalaam li ma bëgg a waxtaanee tey nag mooy ñaata façon ngi nodd ñoo am xam ngeen ne yonent bi sallallahu alayhi wa amuloon benn noddukat kese donte benn noddukat mooy bi gën a siiw ndax mooy bi gënoon a taxaw moom alayhi salaatu salaam mooy Seydina Bilal amoon na noddukat bu ñuy wax Amr ibn Ummi Maktum ñu koy tuddee Abdallah ñii ne waa Medina koy wax Abdallah waa Kuuf waa Iraq ko wax Amr ala kulli xaalin ci noddikatu yonent sallallahu alayhi wa sallam la bokkoon wax ne na ci moom sax la abasa wa wàcc ay gët ay gisam dégg nga gisam dafa sëggoon moo tax moom fajar la daan nodd bilaal moo daan nodd yeneen waxtu yi guddi gi it bilaal mooy nodd yonentu sallallahu alayhi wasallam ne bu bilaal noddee continuer leen lekk maanaam ci weeru koor bu ngeen déggee nag amr ibn ummi maktum nodd na ngeen arrêté lekk ndax moom balaa moo nodd dañ koy wax ne kon nga fajar jot na noddal alayhi ala tabaraka wa taala ñetteelu noddukatu yonentu sallallahu alayhi wa sallam muy abu mahdura abu mahdura abu mahdura nag dégg nga turam mooy aws moom moo nekkoon ca makkatal mukarrama ñeenteelu noddukat bi moom mooy saad alqaradi saad alqarad wala saad alqaradi saad ibnu aid alqaradi dañ koy tuddee alqarad lu tax dafa daa def commerce te commerce am doxutoon lu mu dugg rek mu yàqu ba yàlla atte muy jaay alqarad muy xobi salam mu dox ñu di ko ko dàkkantale alayhi ridwanullahi tabaraka wa taala yonent ñëw na dégg nga Quba te bu daan ñëw Quba daf daa ànd ak Seydina Bilal mu koy noddal bés mu ñëw dégg nga àndul ak Bilal Saad moomee moom moo nodd wax nañ ne sax bi fi yonantu sallallahu alayhi wa sallam jógee ba Seydina Bilal gàddaay dem Cham moom Seydina Abubakar indi ci jàkka yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu remplacé ko ñii ne ci jamono Seydina Omar radiallahu tabaraka wa taala anil jamii dégg nga bu may tudd ñii maa ngi bëgg a yegg ci façon ngi nodd ak nodd gan mooy nodd kan nodd gan mooy nodd kan donte nodd yëpp dégg nga ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam lañ jógee ci yëpp wér nañ dafa am nodd gu ñuy wax nodd kuufa am nodd gu ñuy wax nodd makka am nodd gu ñuy wax nodd madina loolu nag ci jamono yooyu la woon ci téere fiq yi wante léegi nodd gi ñuy tuddee nodd kuufa daanaka moo gën a bëri ci al aalamul islaami moom la nodd ca kuufa moom la ñuy nodd ca màkka moom la ñuy nodd ca madina moom mooy nodduk bilaal gi moom mooy nodduk bilaal gi nodd gi nga xam ne fukki baat la ak juróom su ma waxee fukki baat ak juróom mooy fukki jumla ak juróom fukki jumla ak juróom fukki sentence ak juróom boobaa da ngay wax allahu akbar ñeenti yoon nga ne ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu an laa ilaha illa ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala alsalaa hayya ala alsalaa hayya ala alfalaa hayya ala alfalaa allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah muy fukk ak juróom bii mooy noddu kuufa gi moom waaye tey dégg nga moom la ñu noddee ci dëkk yu bari mooy noddu bilaal gi moom daf daa dégg nga dem rek waaye du def tarjia lan mooy tarjia tarjia mooy nodduk abu mahdura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 dégg nga nga defaat ashhadu an laa ilaha illallah ak baat boo xam ne kawewut ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah léegi nag nga dellu siwaat ci ashhadu an laa ilaha illallah bi kaweel sa baat nag nga ne ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu an laa ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala alsalah hayya ala alsalah ah, hayya ala alfalah hayya ala alfalah allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah fukki baat ak juróom-ñeent yii mooy noddu mag noddu madina gi nag dégg nga fukki baat la ak juróom-ñaar bu ko defee moom allahu akbar yu njëkk yi dootoo ko wax ñeenti yoon ñaar yoon rek ba koy wax yaa allahu akbar allahu akbar dégg nga nga ashhadu an laa ilaha illallah ak ashhadu anna muhammadan rasulullah dégg nga bu ci nekk nga wax ko ñaari yoon ci suuf dégg waaye ci suuf koo xam ne nag nit ñi danañ la dégg ndax ñu mën ko répété nga soog ko dégluwaat nga soog a waxaat ca kaw baat yooyu le dégg nga ba nodd gi jeex muy fukki baat ak juróom-ñaar gii la ñuy tuddee noddug madina dégg nga almalikiya dégg nga nodd gi moom la ñuy noddee dëkk yi nga xam ne dëkk yi waa kër Imam Malik lañ fu mel ni Maghrib fu mel ni Sénégal fu mel ni nàngam nodd gi moo ëpp ci nodd yi ñuy noddee bu dee nodd Màkka gi nag fu mel ni Misra lañ ëpp luñ koy noddee waaye bu dee noddu Kuufa gi nag li ëpp ci dëkki lislaam yëpp tey moom la ñuy noddee ala kulli xaalin nodd yi yëpp rot nañ jógee ci yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama maa ngi doon wax lu bàyyi lu mat a bàyyi xel ndax yonent salallahu alayhi wa sallam dafa ne ku dégg noddukat ngay répété la mu wax boo baree nga def ñaan gi dégg nga sama ramm war na ci yow maanaam man maa lay ramm yowmal qiyaamati dig la moo dig na kooku ak rammam te ku yoon salallahu alayhi wa sallam ramm nga dem aljanna alayhi salatu salaam kon noddukat bi na xam ne nit ñi ñu ngi ko dañ ko war a dégg di répété li muy wax moo tax buy suufeel tamit bu mu ko suufeel ci boppam rek na ko wax dégg nga ak baat boo xam ne nit ñi danañ ko dégg ngir mën ko répété moo xam euh, dégg nga baat yu suufe yi wala baat yu kaw na neex baat nag noonu ko dafay neex baat noonu dafay neex baat fii la ñuy tàggatoo ak yéen incha allah hada wa sallallahu ala mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin ali maladu nas